dikkati naa réew mi dee ngi mel ni sabaru ñooñu tribune yéene kaay ne ma jaxasoo lëj ne wëñ waaye yéene kaay ibdee média bi naan man tempo tempo rek demal ma ba Touba ak catastrophe bu métti boo xam ne am na ca pof di bassin nag moo daal di fees ba daal di yënq bëx nag daal di tàmbalee yàq ya xeet yéen ci gox ci diwaanu Touba ay tool yoo xam ne ndox ma daal na koy moom yàq ya xeet loo xam ne ji nañ ko fa ba tàmbale koo bay moom tali ba nga xam ne moo dox diggante Taïf ca Touba jaar julul dafa daal di xar ñaar ndax ndox maa ko yàq yéen kaay bi naan man dara liggéeyu Mamour Diallo la waaye tam Serigne Mbaye Thiam ñaar ñi nga xam ne nag ñoo yor ndox ci réewum Sénégal Mamour moo yor ONAS Serigne Mbaye Thiam yor ministère bi ñu dénk wàllum ndox mi Tribune yéen kaay ne ma bul demagum ñi nga xam ne nag ñoo am woppub jalis ci réewum Sénégal ña ngay ñaxtu nag ci ruq si nga xam ne fa lañ leen di dugal ñuy def hémodialyse ma ne la fan leen di teg rek ngir dugal leen daanaka jafe-jafe lañ cay daal di jëlee ñoom hémodialysé yi suñu yeewoo ngir jaagër jaagër dem ca angaar bu yàgg ba ñu leen di agressé fim ne nag ña ngay sàkku ak ndimbal vox populi naan kon waxtu woowu terrain yi nga xam ni moo nekkoon ca aéroport ba day jaay nañ lépp lépp juróom ñaar fukk ak benn ci milliards ma ne la def nañ ko ci jaay nañ ko boobu hémodialyse yaa ngi nekk ci njàqare goo xam ni maar day taali l'enquête ko di jee naan ko déet booba bugaan géy dani kay ma nga ñaxtul ña nga xam ne ñoo am AVC ci réew mi ci seen bëccëg ba bugaan ne ña leen di tabaxal ñetti at a ngi ni yeggul roñ-roñee hôpital ak hôpital di leen indil faatuk bakkan ñi nga xam ne ñoo am wopp xol ci réew mi tum ranke sonn lool AVC nag daal di ci raw ndax fii ci Sénégal daanaka dañ leen di seetaan seetaan goo xam ni maar day taali moom l'enquête naan man desal ak man ma xamal la ni nag boo demee ba Dakar Plateau daanaka nag patrimoine taarix desatu fa diggante Senghor ba président Macky Sall nguur gu fa jaar jël sa ñaqu mbootaay milliardaire libanais yeeg israélien yi mani la di tibb ca Dakar Plateau ba maar day taali caxat caxatee suuf sa le mandat yéen kaay nan man boo ca noppee waxal coowal borom ñaari tur la nga xam ne daal dinañ koy sulee ca leew nañu seen ba ma ngi koy naqarlu cib communiqué jugee le témoin yéen kaay naan kon niki Sénégal ak bitim réew ñëpp koy naqarlu libération ne ko ñeent ci nit daar daar jàpp nañ leen ci Seydi Gassama ne Sénégal dama xamul nu ñu def nag ba daal yeg si fii l'info yéen kaay ne ko déet Sénégal kay fi mu ne fi mu jëm ci ñaawteef daanaka bëri ko ci mbartal la kan moo koy capté nag ba du yegg loolooy coow li ndaw yi ñoo ko war a capté te ndaw yoo yooyee daanaka ñoo ne ca mbartal ma l'info daal dina Sénégal nag la am ca kaw la lu ci sëy loo xam ne nuyoo woon na ca ngoro la dañ koo fayut fi ne nag askanu Sénégal fajal seen bopp la ñu jël di ca xat ca xatee nga xam ne moom mooy sunu taarix di ay institution judiciaire ak yeneen ñenn ñi bu naan ñàkk leen wóolu la ñeneen ñi moom ña ngay ca xat ca xateewel yéenikaay bi xamal ma ne laataa ñuy def ñaawteef gii ka ca Kaolack am nag vigile boo xam ne njort la ñu amoon ci moom ca Ngor dañu koo faat 2022 am na xale bu góor boo xam ne fii ci Liberté 5 ab menuisier la amoon fanweeri at ak ñeent dañ ko takk ci poto daal di koy dóor ba mu faatu fii ci université Cheikh Anta Diop moo ko doon yëddu te bu ca yàlla deful woon sutura daanaka dañu koy faat turbine nan kon en jàpp nañ ca ñeent libération ne ka nga xam ne nee ñu moo jiite mbir ma daw na vidéo yi nag tàmbalee di génne gaay leen di jàpp booba coow laa nga ci ndax présidentiel ba dina am am déet l'observateur jox kàddu ñenn ñi naan yàlla tere Abdou Karim Fofana ci l'enquête quotidienne ca Léopold Sédar Senghor ak tey kenn musu fee dàq présidentiel moom président Macky ko def tey jii dugg ci taarix ba faw moom président Macky Sall ci dàq élection mu 24 heures yéeni kaay naan maan booba gëm sa bopp ngay dajale ay parrain lu toll ci juróom ñetti junni ak ñetti téeméer ci parrain daal dinañ koy dajale daar daar ca diwaanu Thiès le mandat yéeni kaay rax ci dolli Thiès daal di riir daal di fàqi dem jàppale ji Bougane Gueye Dany critique yéeni kaay naan kon gaayaa ngay politique moom ma ngay wëri parrainage diwaanu Thiès daanaka daal dina koy ratissé ak lu toll ci juróom ñetti junni ak ñetti téeméer ci parrain yoo xam ne daal dinañ koy séddal waa gëm sa bopp l'évidence yéeni kaay naan maan waa s d Souleymane Ndiaye daal di koy jiite njiital SAPCO daal dinay jël record ya lu toll ci juróom benn fukk ak juróom ñetti junni ci parrain daal dina koy dajale ci ñetti ayu bés daal di koy jébbal Abdoulaye Diagne mi nga xam ne président Macky Sall moom la tabb S2D daal di jébbal président Macky Sall lu toll ci téeméeri junni ci parrain moo tax ñuy xamal Sall naan kon pareegunu jeexaluñu le point yéeni kaay naan kon Moustapha Gueye njiital kurus bu Bambey daal dinay dajale ay parrain lu toll daanaka ci fanweeri junni ci parrain jébbal na ko ministre de la femme Fatou Diané turbine yéeni kaay naan maan moom Fatou Diané ci boppam xamal na Moustapha Guèye ne ko département bu Diourbel bu ñu la ko bàyyee woon daanaka nga matale parrainage yi foofee ndax fukki junni ak juróom benn jébbale nga ko laataa ngay jébbale fukki junni ak juróom muy lu ëpp fanweeri junni ci parrain te laataa collecte bi di jeex daanaka Moustapha mën na yegg ci téeméeri junni le peuple quotidien naan man waa Fulaadu ya nekk ca Dalifort te may Maimouna Baldé jiite leen nekk responsable ca jàmm gën si Kab ak Pikine daal dina ñuy mobiliser wu ngir candidat bii di Amadou ndaje bu rëy boo xam ne amaloon nañ ko Fuladu ya nekk ca Dalifort daal di xamal Maymuna ne ko daañu occupé politique bi daañu dajale ay parrainage waaye itam daañu sànnil seen i xob Amadou Ba yemuñ ca daañu dem seeti seen mbokk yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk dëkkaani ci réewum Sénégal gannaaw bi nga xam ne daañu dox tànk ngir waa bennoo doon benn le témoin yéen kaay mel ni ku naan kon lu jafewaay ndax yenn kaña yi moom daal dina ñuy tëbee ci bato ba laataa muy suux réew mi ko dijee naan kon waxtu woowu nguuru Sénégal daal nay daq audience bi nga xam ne amoon na ko ci atte yi leen war a seen digg ak Ousmane Sonko turbine yéen naan kon maa lay dikkal nag ci jàpp Amadou Ba Pastef fii ci loko Sen TV yi procureur moo daal di sàkku ñu jàpp Amadou Ba mii yor yor naan kon cey Amadou Ba waaye tam Fatima Seynabou Kane ñii de daanaka ñooy béyu sarax yi ndax nag Juan Branco mi nga xam ne mooy ndayu mbilli ji daal di jël bulletin yi daal di publier fëgg dëna moom Juan ne maa publier moom kenn woowu ko kenn laaju ko ñu xam ci moom dara ñaar ñi nga xam ne daanaka bëgg nañ leen saraxe ñu ne ñépp daal di jàpp ñu ne déeta waaye ay retour de parquet nag di ci am boobal la solo yéene